mooy le comité régional de solidarité bi ma wax léegi des femmes de la région pour la paix en Casamance li nag du gulet parce que bii mooy deuxième rencontre bi nga xam ne ñu ngi koy def mais li may rafetlu sax mooy initiative bi nga xam ne déjà jël nañ ko parce que conflit en Casamance bi comme ni ñu wax mais c'est un conflit boo xam ne c'est intéressé tout Sénégal la intéressé parce que la Casamance ci Sénégal la bokk kenn mënu koo dindi Sénégal kenn mënu koo xar ñaar benn la. donc lay xew lay xew Casamance mais non seulement ñi lay population Casamance ñu ngi koy mais ñun population du Sénégal également l' des autres régions ñu ngi koy vu donc ci wetu pouvoir public muy président la république ak gouvernement bi nga xam ni boobu ba léegi comme ni ko président waxoon ñu ngi def lépp pour que jàmm mën a am Casamance mais comme ñoom ni ñu ko wane léegi il faut que population également ñoom it jouer seen partie ci nest te gis nañu déjà à travers les réflexions yi ñuy def ak les actions yi ñuy mën a dem nañ ba cibler même les écoles pour sensibiliser les élèves n'est-ce pas sur le conflit n'est-ce pas pour ñu xam d'abord les germes du conflit xam également ce que les élèves doivent ce que les, les, les populations doivent faire pour participer à l'avènement de cette paix en ils ont surtout parlé de solidarité waaw solidarité surtout bi ñu wax loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo parce que solidarité mooy ñu ànd jàppoo nekk benn dimbalante te loolu dafa war ci population yépp rawatina nag ci ñee nga xam ni suñu mbokk lañ suñuy suñu suñu suñuy suñuy doom lañu n'est-ce pas suñu njaboot lañu kon vraiment man rafetlu seen action mais di ñaan également ñeneen ñi nañu jël ko exemple ci ñoom def naa action yu mel nii bu fekkee mën nañ ko retrouver ci région yëpp ñëpp jóg taxaw yàlla mën nañu dimbali ba incha allah euh, crise bi ñu dépassé ko te ku nekk xam na implication jigéen jigéen du jigéen ci takku teem jigéen ak engagement xam nañu lépp lu mu dugg yàlla barkeel ko moo tax vraiment ñu gën a am yaakaar ni ñoom seen taxawaay bi ñu taxaw démb ak tey te gën koo renforcer tey incha allah yàlla dañ leen dimbale dimbale ñu dimbale gouvernement bi pour que paix bi nga xam ne jàmm ji nga xam ni ñu ngi koy jéem ñu ngi koy jéem wut ci Casamance yàlla indi ko te jàmm jooju sax mën naa ne ñu ngi ci yoon parce que la daan xew Casamance démb ak bërki démb tey xewatu fa am na action yoo xam ne daan nga ko fa dégg. ay événements yoo xam daa dootoo ko dégg fi mu nekk c'est vrai am na nag ay ay quelques escarmouches comme ni ñu koy waxee yoo xam ni dina am mais loolu nag moom ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey c'est que nag liggéey bi nag xëy na léeg-léeg du ànd ak wax waaye nag na ñëpp xam ni vraiment ku nekk am nga ci cër am nga ci wàll kon ni ko jigéen ñi defee na ko yeneen jigéen ñi defee également ci yeneen régions yi mais na góor ñi également taxaw ci jàpp ci jàppale pouvoir public yi incha allah yàlla dinañ dimbali n'est-ce pas ñu euh, loolu nga xam ni euh, gàkk-gàkk la te ñekk suñu réew ñu mën koo dindi